Eh, am na benn laaj boo xamante ne borom dafa ne lan la ñuy lan mooy àtte nit koo xamante ne day def bàkkaar ba pare bu delluwaat ci bàkkaar rek ko ñaar ba ñett ba ñeenti liñ koy wax mooy dox alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa li ñu koy wax mooy bañ a xaddi continuer di di tuub bu tuub bi dëggoo yàlla subhanahu wa taala dina ko fot ci bàkkaar boobu waaye bu fekkente ni tuub bi dëggu na tamit dina jéem a xool yoon yi muy jaar pour moytandiku bàkkaar boobu yonente bi alayhi salaam dafa nettali woon benn waay ci lu jiitu boo xam ne dafa dafa faatoon juróom-ñeent fukki bakkan ak juróom-ñeent ginnaaw bi mu wax ne dafa bëgg a tuub quatre la rey assassin la woon da doon rey rek bi nga xamante ni dem na ba bëgg a tuub mu dem laajte borom xam-xam ñu wan ko benn jaamukatu yàlla mu dem laaj jaamukatu yàlla bi du borom xam-xam ne ko ndax mën a tuub ko juróom quatre-vingt-dix-neuf ngay wax waxi tuub mottalee ko téeméer léegi moom da wax ñàkk xam tax ñu ñu ñu rey ko ca mu demaat ba jamono bëgg a mu laajte ñu wan ko benn borom xam-xam bi mu moom laaj ko ndax mën na tuub kooku ne ko mën nga tuub amul ko dox sa digganteeg tuub buntu tuub ubbeeku na. mën ngaa tub waaye dangaa nekk ci suuf soo xam ne suuf su baaxul la suuf si nga nekk moo baaxul jógal foofu nga dem ci dëkk sàngam boo fa nekkee demee ngay jaamu yàlla am na ay jaamu côté yàlla yu fa nekk loolu dina la motiver ci lu baax loolu noonu moom mooy orientation bi mooy des fois des fois nit ki day nekk ci benn bàkkaar di ko def fekk ne yi nga xamante ni moo koy pousse ci muy def bàkkaar bi yooyu ñoo ko wër wala moom mooy dem di ci sóobu wala di fréquenter milieu boo xam dafa am yu bari yu koy pousse ci muy boobu moo tax bu dee tuub bi dëggu na xoolal yi nga xam ne ñoo lay faral di puus ci ngay def bàkkaar bu mu ko moytandiku sa kéemtalaay kàttan mais bul découragé mukk ci góor góorgóorlu foo toll di jéem di tuub ak di jéem a fexe daw pour bañ a récidiver bañ a récidiver pour jëm a sori bàkkaar boobu bu yàggee rek incha allah boo ko soree am yeneen préoccupation ak yeneen mbir yoo xam ne day dox sa digganteeg moom yàlla dina def nga dem ba fàtte ko incha allah